waaw mbir mi de mbirum ñaawteef la mbirum luubal la mbir mi itam dinañ ko leeral mooy armeel yi ni ma ko waxee daari mu xadmatu ma lañ ko teg ci loxoom jamonoy Serigne Saliou bi ñu demee ba ci jamonoy Serigne Sidi Muxtaar en 2014 ci la joxe ndigalul nañ tëj armeel yu njëkk yee ci jumaa ja ubbi yu bàq yi di fi di fi denc daari mu xadmatu xidma continuer di ko gérer nekk fi nag. amal fi nag bureau administration boo xamante ni fi la ñuy identifier mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ fiy rob ak fu ñu mën a jógeek lu leen faat ak ñi leen fi indeek yooyu yëpp ba nga xam ne dañ am information yu leer ci ñi ñi fiy denc donc am personnel bu ñu fi teg boo xamante ni ñooy ànd ak ñoom liggéey bi booba ba léegi nag ci loolu lañ nekk euh, ajjuma ji weesu nag euh, ci lañu ñu constaté ci vers 13 heures ci ne lañ ñu signalé ne am na koo xam ne mi ngi ci biir armeel yi di dagg aluminium bi nga xamante ni moom la ñuy defal euh, bàmmeeli yenn kilifa yi barab yenn kilifa yi ndax xam nañ ne sëñ Sidi Muxtaar bi mu joxee ndigalul nañ fi ñëw dafa santaane woon itam ne bu fa kenn tabax ndax tabax gi day xatal armeel yi loolu ñu ñu koy sàmmonte waaye benn benn kilifa yi nga xam ne am nañ fi ay barab bëgg ñu ra ñu xëy na ràññee ko ngir di ko mën a toppatoo moo taxoon ñu jël lu mel ne ay barrière aluminium di ko fa def ak di leen lalal ay mbàjj ngir di bañ suuf si di naaw loolee nag la ay ñaawteef kat dugg ñuy def kati ñaawteef dugg daal di dagg boppi armiñoom yooyu ak lenn ci barrière armiñoom yi waaye itam lal li mbàjj yooyu ngir di ko jaay loolu mooy xew-xew bi ñu bare bare nag xëy na am nañ ci beneen déggin ndax xëy na ñu doon bind ci wàllu kàllaamay tubaab mm, profan profan mooy sulli te demewut noonu sulli barab yi bar barrière yooyu nga xam ne armi la lañ lañ dagg bon ak mbàjj yi nga xamante ni ñoom lañ fa laloon biñ ko constaté toll na ci fukki barab ak juróom yoo xam ne dagg nañ bopp yi ci kaw euh, bon laali fa ay mbàjj bokk na ca barabu booy jurub euh, Serigne Abdou Karim moom Cheikh Mouhamadul Fadal muy soxna maam Awa Faye moom mbàjj mi lañ jël donc loolu mooy xew-xew bi benn bi dimanche la ver 13h benn bi itam mm, ajjuma la euh, vers 13h nga xam ne daanaka ñaari heure yooyu la donc ñoom ñëpp itam bu leen jàppee jëbbal nañ leen gendarmerie ndax fii zone gendarmerie la gendarmerie dana def li ca li ca li ca li ca war. vers 13h fi ñëw euh, armée li bi ñu ko ubbee. liggéey bi dañ cee lëkkaloo ak mairie bu Touba commune bu Touba ndax xam nañ ne ku nekk xam na ne ay gestion cimetière mairie moo koy moo koy war di gérer loolu tax na itam daal Moukhaddamatoul Khidma ànd ak mairie bi ba ñu wut kër gi nga xamante ni mooy et fi nañuy defee état civil bi defar document yi waaye itam wut ñaari agent yoo xamante ni dañ leen fi teg di leen fay ci ñuy sécuriser kenn ki moo fi yendu bëccëg gi kenn ki moo fi fanaan ci guddi gi bon ki fi yendu bëccëg gi ku nekk xam na armée li daanaka un kilomètre la dafa gudd dafa yaatu un kenn nit mënu ko mënu ko mënu ko gérer ci ci di ko di ko di ko di ko wër ak ak ak ni mu guddee miir bu gudd la benn porte la am moom mais nag loolu mu mu mëneesu ko donc euh, foofu bëggoon nañ kon ñu gën a dolli personnel bi. am na sécurité naam mais sécurité bi nag gën a dolli ndax luubalkat moom yaakaar naa ne segam fi nga xam ne fi la nit ñuy dund sax biir dëkk bi nit ñuy dund sax moo am ay barakaas ak yooyu rawatina foo xamante ni ay armée la daanaka ñi fay ñu fa tëdd ñëpp ñu ñu ñu wuy ji seen borom lañ kon. bëggoon nañ sécurité bi ñu dolli ko dolli personnel boobu ngir mënuñu wax ne amul sécurité complètement waaye jar na dolli ndax ñaari nit mënuñoo assurer sécurité bu kii kii di yendu kii di fanaan dégg nga euh, te loolu commune bi moom moo leen fi tracé beneen bi ci topp mooy éclairage public bi lu mel ni lumière yi lamp yi parce que am na ay lamp mais yooyu solaire la te dafa am jafe-jafe yu ci bëree bëri tàkkul ku fi ñëw guddi di nga ko gis donc itam foofu bëggoon nañ ñu yokk éclairage bi ba nga xamante ni làmp yi dana mën a leer ba def ko te ñaawte fu mu mën a jógee bu kiyee ñu séen ko ndax lu leer lañ bañ loolu bëggoon nañ daal gi gën a yokk ñu yokk personnel bi. mbir mi jàpp ñu ne dara raxasuñu lu dul ne ay defkatu ñaawteef toll gis nga ko euh, dégg nga ñi ngi attaqué ñi yor xaalis euh, i kër ñi itam nañ lii buñ ko daggee mën nañ koo jaay ndax almi ñoom ku nekk xam na ne nit ñi dañ ci dañ dañ ci dañ ciy def commerce di ko jaay loolu rek lañ jàpp ne dañ koy lalli di ko kii yaakaar naa ne sàcc ci ay armeel njëkkee wuñ ko Tuubaa fu nekk am na fa fu nekk dañuy dem ci armeel yi di sàcc ay bagage ndax dañuy xalaat ne armeel yi guddi kenn du fa nekk loolu rek mais yàlla def na ci sutura ñoom ñëpp jàpp nañ leen te buñ leen jàppee xëy na danañ danañ danañ feeñal yu bare bare ba waaw naka lañ def ba jàpp leen ñu ngi ci loxoy gendarmerie kenn ki sax waa gendarmerie ci boppam ñoo ko jàpp ndax ñoom ñoo fi ñëwoon doon ziare ñoom doon woon doon ziare benn barab seen ko muy def loolu ñu ne looy def mu daw ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee lañ doog a ne kon kii lii la doon def keneen ki ci des gardien bi fi nekk ci boppam moo ko moo ko dàq jàpp ko ñoom ñaar ñëpp ñu jébbal leen gendarmerie gendarmerie nag defeere na leen incha allah xëy na li ci war danañ ko ci danañ ko ci def mais daayira moom li ko ci waroon wax dëgg yàlla def na ko mooy lim man ci sécurité mi ngi koy def ñi ngi ñaan nag ñu dolli ko bu baax a baax a baax ndax gardien boobu di taxaw ci buntu bi bëccëg gi gis nga li muy def mooy auto transport yi nga xam ne dañuy dugg te xëy na mën nañoo jaxase bàmmeel yi dañ leen di tere lu dul auto kilifa yi ay moto yi lu mel ne jakarta ak yooyu gis nga dañ leen di immobiliser ci buntu bi yooyu yëpp ay mesures la yoo xamante ne jël nañ ko sécurité nag du doy du doy luñ ko dolli rek mooy yokk personnel bi ci sécurité waaye itam defar éclairage public bi ba nga xam ne fu waay toll danañ ko mën a seen def defkati ñaawteef yaakaar naa fu leer lay bañ ñaar yooyu daal ndax yeneen beneen côté bi ci des moom muy côté administration bi moom amuñ ci benn jafe-jafe mi ngi dox ni mu waree te ku fi ñëw danga xam ne mi ngi dox. waaw kàddu yu mujj yi du lu dul nag ñaax mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ci taxawaayu armeel yi nga xam ne ñëpp ñoo ci bokk taxawaay euh, ndax barab la boo xamante ni ku fi ku fi sa mbokk nekkul sab xarita ngi fi wala sa sab sëriñ euh, rawatina euh, ñi nga xamante ni ay taalibi murit lañ kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax murit bu nekkat boo sañoon boo faatoo ñu andile fii ci dëkku dëkkub Cheikhul Khadim bi kon nag taxawaay bi nga xam ne moom la ci daari Muxaddamatul Xidma di taxaw na ñëpp xam ne taxawaay la boo xam ne moo war mbokki taalibi yi fi nekk yëpp ñu ngi leen ci lancé appel ñu gën cee jàpp bu baax a baax a baax bépp lépp xalaat boo xamante ni tax liggéey bi gën a jëm kanam ñu ngi xaar xalaat boobu di ko taatante incha allah danañ ko jëfee. saa su la ngeen di am yu am solo yuy bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ agréer